moom mi nga xam ne moom ngeen àndal ak mboolem délégation bi yëpp bàyyiwuma ci kenn te bu ñu tuddee Serigne Abou Mbacké tudd ci euh, sëriñ moo Doqeya ak Mohamed Masali ak Mamadou Ndiaye mu mën a yóbbaale yi ci des ñëpp ñi ma tudd ak ma tuddut di delloo ab nuyoo rek ne ko alxuraan santaane di fedd la suji diggante ak yow ndax diggante bu yàgg sa lépp rafet loolu nag bañ la xamee ba nëgë ak mboolem ku la xam ku ne rek li li jiitu ci li xelam di jëkk a dem mooy sag taalibe bi Sëriñ Tuubaa ak sag bëgg Sëriñ Tuubaa ak sag bëgg yoon wi ñu la ko Sëriñ Cheikh Baara seerale léegi rek yoon mbir bi yëpp loolu lañ xam ci yow te yàqut nag sa digg ak yeneen tariixa yi ci des kenn ku ci ne cër bu mu am ci yow jox nga ko ndax li ci firnde mooy sa digg ak Serigne Cheikh Tidiane ak yeneen tariixa yi loolu day wane jikko ju rafet rek ndax loolu mooy li ñuy wax attaayush asilmi yi kon ñu lay delloo nuyoo ci bisu màggat gi nga xam ne ñëw nga kër màggat si te Touba nga fi kër yu bari kon loolu day firnde ne sa digg ak Touba du tay démb la di rafet lu it sa taxawaay ci yoon wi ndax lu xew ci yoon wi rek sa jëf dem fa sa ndaw dem fa nga ànd ko ñoom bu dara xewut tam yaa ngi ànd ak ñoom ci lépp loolu nag eh, Serigne Touba rek a tax nga di ko jëf Serigne tubaab mi tax nga di ko jëf nag gis na ko kon ñu ngi ci dara jàmm rek na fayal boppam te Serigne Touba kenn du ko jëfal di ko rëccu li nga wax léegi it. dala Cheikh Mouhamadou seer seerloon ci kanamu àdduna doy na sëkk te loolu rek mooy li am soo te mooy dëgg ndax ku fi lu toll ne ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa seere la kàddu yooyu ci kanamu àdduna te mu wóor la muy wax yàlla rek mu di ko wax yàlla rek mu di ko seere loolu doy sëkk kon bu kenn xamutoon tam seen seeram sa doy na sëkk te mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa ku fi mas a si Sëriñ Tuubaa ku ne. te tërbiyewu nga ko balax gërëm tàmbalee ci sëriñ Saliou Mbacké ak la ko jëkk Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Serigne Saliou Cheikh Mouhamadou Bara moom moom li cëpp daanaa ko fekke moo tax néew na ma nett li ci biiru xilaafam dara te tudduma li ci ëpp ñoo ko daa ànd Cheikh Sidi itam dégg nga ba taay bu ma sant accès wala mu gëj laa dégg dalee wax dama lay namm loolu nag kon ab cër la ci yow boo xam ne euh, loo jëflante ñoom la jëflante woo jabootu Sëriñ Tuubaa yëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha mi itam fàttaliku naa lu jëkk doon ko Sëriñ Tuubaa boo Cheikh Sidi Muxtaar fi nekk mu wàll bis am lu mu lay digal du xóot loo xam ne mënu su ko wax ci rajo nee dama bëggoon nga def nii bàyyi lii te lool néew na mu wax ko nit ndax Sëriñ Mountakha mbirum politique du doxinam kon loolu lépp ab cër la boo am ci moom kon nag loolu te ni mu ko amee ci ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa nga waru Sëriñ Tuubaa yëpp cër boobu nga am ci ñoom sama liggéey yow nag ni nga ko waxee rek mooy mooy li ci mujj moom sag jàpp ci man sag cofeel sag bëgg dara desu ci àdduna sépp xam nañ ko ku la xam ku ne xam na cër bi nga ma jox ak jàpp gi kon nag ñu tam ñu ngi yeesaloo suñu digg yow di ñaan yàlla sàmm ko ndax Sëriñ Tuubaa daa wax nan ku mën a fas kóllëre mooy koo xam ne bu jàppee ma dama ni may fasante nit kóllëre mooy bu bu jàppee ma jàpp bu bàyyee ma jàpp ndax wa di bil ahdi innal ahda kaana mas'uulan kóllëre suñu yoon boo ko fonk ba bokk na ci ñi laaj boo liggéey kon nag képp koo fasantil kóllëre gi leer rek war nga koo jàpp kon nag ñu ngi koy fàttali ci yow di la sant bu baax nag di la gërëm cant guñ tibb ci suñu xol ndax euh, sëñ bi daa wax nit kuy jëm kuy dem ci barab ko ne jëmmoo la fay seet bu ko fekkee toog fa bu ko fekku na day gàddaay waaye liñ am ci yow ci cër lépp jox nga ñu ko ba jox ko lu ko ëpp kon nag ñu ñaan suñu borom sàmm kóolal gi te jàpp te te dëgëral ko te yàlla mboot li seen yéene dëgëral seen taxawaay. te mboolem li ngay sonn ci yoon wi di ko jëf ngir Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa rek a tax nga di ko jëf Sëriñ Tuubaa moo tax ngay jëf nag perte perte ci ndax bu la nit ñi fay tam daa la fay boppam te ak payam rek ëpp solo kon ñu ngi ñaan bu baax di nuyu ñi nga ànd ak ñëpp ci bis bi ñu dugg ci bisu Sëriñ Tuubaa mu diggee ci lim ci déwén lim ci daale yàlla dimbali ñu kàttan nañu bañ àgg ca jam